na njëkkee nag ak anniversaire boo xamante ni euh, sama bos la ndax euh, sama yaay euh, Cheikh Ndeye Amilo moo yónnee message ak doomam Vitu yaayu Thérèse Aminata ak Mariem nekk France yaayu Omar pour souhaiter joyeux anniversaire Cheikh yi voilà muy Abi ak Mariem donc Abi ak Mariem olo leur souhaite un bon anniversaire ay jarbaatu xam ne loolu ñu c'est de la part de maman Adja Cheikh Ndeye Amilo c'est de la part aussi de la petite princesse Senrak Euh, Vitou ak euh, Thérèse Aminata ak euh, bébé Omar depuis France alors Mariem ak Abi ñu ngi leen di ñaanal message bu gudd laa jot mu jóge ci maman mu lay ñaanal ne lu ma wax rek tey ci yéen du doy waaye xam naa li ci des mun naa ko àggalee ci rajo bi ndax falaay gën a amee espace fii dama dafay xat ak ñii yeeg fi ñu toogee waaw ñii dañ ma tënk daal mais ci rajo bi laay gën a amee espace donc Abi et Mariem ñu ngi leen di souhaiter un bon anniversaire Euh, di souhaiter itam un joyeux anniversaire à ma grande sœur Binta Faye madame Cissé euh, bu euh, mairie Dakar taaw njëkk a juddu njëkk a baax c'est de la part de Matichou Thiat Matichou bu télévision Futur Média ak toute la famille Faye donc ñoo lay souhaiter un bon anniversaire beaucoup de bonheur pour Binta Faye madame Cissé nekk fi nga xam ne nii mooy mairie bu Dakar. joyeux anniversaire euh, deuxième bi dañu ko baare euh, donc ma dem ci Mamadou Moustapha mu ngi nii dañoo baare man nëbbu leen nëbbu dara dañu ko baare dañu ko baare nii man nëbbu ma leen dara man man lépp laay won nëbbu ma leen dara man waaw Mado Mado lépp laa koy won <laughs> waaw boo buggee léegi nii ñu wane wanewaat kanamu Mado ma wanaat ko li ma wanaat ko lépp bu ngeen bëggee léegi ma wanaat ma wanaat Mado li ma ko won sànq bëgg bëggal ko da bëggaat da ngaa bëggaat <laughs> allez maa bañ joyeux anniversaire à c'est de la part de ses belles-sœurs Bassine Talla ak Ndeye Khady euh, Mori Diop ñu ngi koy ñaanal euh, di ko souhaiter un joyeux anniversaire joyeux anniversaire à maman Aïda Anne c'est de la part de toute sa famille depuis Cambérène joyeux anniversaire à DJ Matar de la radio Bambilor FM longue vie à toi c'est de la part de toute la famille Ndiaye joyeux anniversaire à Binette Ndiaye depuis Mermoz beaucoup de bonheur pour elle Mamadou. joyeux anniversaire à Binette. en tout cas beaucoup de bonheur pour toi. santé de prospérité <laughs> non maa ngi bi. ah yaa ngi mel noonu kon xaaroo ko jam ñaajo. de Awa les États-Unis et à day jéggi naa jéggi frontière kon laaw ba faaw. oui joyeux anniversaire à Assiatou Assiatou de la part de Awa Awa depuis les États-Unis en tout cas mi ngi lay souhaité beaucoup de bonheur santé de fer prospérité yàlla may la gudd fan weer. voilà Bambilor nag du ma fa ma fa jógee te nuyu ma préfet ak sous préfet bu Bambilor ñu baax a ko yàlla na seen jàmm yàgg yow <laughs> itam balaa ngay génn ci dëkk da ngay nuyu kilifa ya fa ne oh. pour en cas de jafe jàpp ci te préfet bi ak sous préfet bi dañu bëgg tonton mag bu TFM maxu béy waaw xam nga boo nuyoo da nga joxe sa tur man la diw s'il faut pas mettre un visage un visage sur ton nom nga leen man la diw donc ñoom Matar bii la ñu xam ma def jàllale yi rek man maay Sénélec <laughs> branché rek laa fi nekkee ñama branché woon ñëpp ñooy ànd léegi léegi damay nam sama xarit sama xarit lay woon ne ko ana sama xarit lii laa nekk ci réew wa yàlla baax na branchement ñu ngi nuyu préfet ak sous préfet bu Bambilor ma jóge Bambilor nag dem yeen euh, nuyu maire ba góor gi siis nit ku baax waaw boobu moom sama yëf la moo tax présenté wu ma ko kenn dootuma présenté léegi <laughs> da ngay présenté nit mu nangu sa xarit moo tax léegi daal dootuma présenté da nga ñeme présenté ngeen xamante ni mairie moom te da ñeme présenté doo ko xam de <laughs> góor gi ba sa sa maire xamoo ko yamal ci waawoon rek te bàyyi maag yéen man mii sax bu doon élection moom laay votel voilà déedéet coro fay coro coro Coro. dégg na léegi damay woote ci télé bi. <laughs> Coro. yow ñuy fo nga ne da Coro. fay bu góor gi siis Coro. Coro. Mm. xam nga li may wootee ñi dafa neex ndax ki ngay woo bu tombeek muy seetaan muy seetaan télé te dugg ci douche bi. sa naam day jib naam <laughs> donc Coro Faye bu góor gi siis ñu ngi koy nuyu bu baax maa ngi tolloon juste donc ci Binette Ndiaye depuis Mermoz c'est de la part de Mamadou Ndiaye dem naa tamit euh, ci Assietou mm-hmm. euh, moom cousine Awa Touré la depuis États-Unis on lui souhaite un happy birthday et puis joyeux anniversaire à notre femme suñu jabar euh, suñu xarit mu ngi noonu di fonante ak jëkkër ji kii mooy ñaaña bu mm-hmm. Carlou di adorable mm-hmm. bëgg bëgg jëkkëram et comme on dit te da koo derrière chaque Kanda derrière Djibi y a Bisou derrière mm. Matar y a Fama derrière Carlodi y a Nyanya derrière derrière euh, derrière Ricardo y a derrière Serre y a donc à Nyanya on lui souhaite un bon anniversaire ñu bëri ñu bëri bëgg nañu euh, ah. euh, moom moo tax. effectivement Pape Cheikh comme ni nga ko waxee ñu bari bëgg nañ Carlou te jëmmam ji. moom mi moom moo tax. ñaañaa ñu duppee ko nag first Linguère. de toutes les Linguères donc vraiment de ma part. et mm. de par ma voix je vais dire. et euh, de la part de toutes les Linguères. ku mel ni mm. Aïda Safia Fadiaw. Raki Fall bébé Carlou mm-hmm. Juliette Ba Ali ak Kumba Ndooy mi nga xamante ne moom la ñu jaglelee woyu euh, Ndooy Maali Marème bu bees bi maanaam. Oh. moom daal on lui souhaite gudd fan ak wér. on l' embrasse très fort Aïda elle est superbe. on l' embrasse. juste ni rek nag voilà donc ñaaña ñu ngi lay souhaiter un bon anniversaire mm. beaucoup de bonheur pour toi yow sax soriantowuloog mm. sa sa sa jëkkër barki démb la woon barki démb la woon anniversaire u Kaalu di donc tey anniversaire u jabar ji kii mooy mbëggeel nii la neexee juste rek Kaalu dafa judd rek ndeysaan xam naa une semaine après mu dégg xale bu jigéen bu ne awe ah rek mu la yàlla dog daa takk morso ñaaña <laughs> ñaaña Contador. ñaaña. ñaaña ñaaña. ñaaña ma ngay ree nag kik kik kik kik kik. ñaaña. donc billaay buñ la wuyoo ba nga jombi. waaw te nga wuyul ko exactement. ah yéegali rek mus naa fi def lu rëy ci télé bi ci plateau bi en direct yow dina ko wax mais bis moo ko defee moom nee na dafa tiit ndax daa foogoon ni moo ko def ci ngëwélam maa ko defoon joyeux anniversaire à Nya Nya voilà joyeux anniversaire à ma petite nièce Fifi Traoré c'est de la part de sa maman euh, Mounas son papa euh, Badiane Kodou ak euh, toute la famille Traoré depuis Liberté 5 et puis joyeux anniversaire à Mam Doumbé borom Dakar ne dort pas c'est de la part de toute l'équipe de Dakar ne dort pas on lui souhaite beaucoup de bonheur joyeux anniversaire à Djouma Sarr madame Destafani c'est de la part de ta famille tes amis Chadi Moussa Ibou ton mari qui t'aime de tout son cœur mm. joyeux anniversaire à Papa Yaham Ndiaye depuis Italie. C'est de la part de ta maman Rokhaya et de ton papa qui te souhaite un bon anniversaire. joyeux anniversaire à la magnifique euh, Amina alias euh, Mina Privé euh, borom fair play euh, c'est de la part de Bijou là c'était hier euh, mais dañu ko doon dabbali rek waaw ah, dabbali dabbali da ciy baax wa wa yàlla baax na Mamadou Ndiaye noppil Ndiaye noppil noppil noppil noppil elle est très occupée génnal ci moom bàyyi xale bu jigéen bi Ah, ah si jigéen rek la mbaa doo deux heures <laughs> aha ah. <laughs> fair play donc bon anniversaire à Mina Privé joyeux anniversaire à Moussa Sène doomu ndeyu euh, laay si Koba Sène Koba Sène c'est de la part de sa famille et de ses amis eh, il est trop adorable day ñëw bu paree ci biir régime bi mu ñëw mos lépp dem il est trop chou on peut tout le temps compter sur lui et euh, c'est un amour daal nijaayu Adja Sy noonu la ko Adja Sy nappee xarit ma def <laughs> <laughs> happy birthday de la part de enfin la famille si ta famille tes amis on t'adore de la part de Adja aussi de la part de Adja aussi ak Tayar ak tonton Tayar mm-hmm. yow doo bàyyi tonton du ma ko bàyyi tonton Tayar tonton Tayar maa ngi lay nuyu joyeux anniversaire à bébé Siré Omar Bokoum qui fête un de la part de toute la famille Bokoum et Diouf euh, depuis HLM Angle Mousse am na itam yeneen anniversaire certainement yu des. Euh, où sont les papiers Mamadou Ndiaye waaw mooy chéri Rokhaya Seydi oh là là chéri Rokhaya Seydi sama xarit donc euh, Coly Ndiaye lañ koy on te souhaite vraiment le beaucoup de bonheur pour donc defe naa léegi jeex na affaire yi. Mhm. ah ñu jaaree fi n'est-ce pas xam nga émission moom daa mel ni lépp euh,